association santé éducation emploi weex jàng ak liggéey amal nañu journée de consultation gratuite maanaam bés boo xam ne dañuy amal paj te doo fay dara ñu amalee ko fii ci pencum daaru salaam taxawu askan wi nga xam ne ñoo fi dëkkee ci wàllum paj muy góor jigéen mag ak ndaw sëriñ maam Cheikh Mbacke di sëtu sëriñ Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan moo doon coordonné bis bi. li mus am te maam Cheikh yax mu jiite association bi ak fondé ko bëgg jàppale daara yi. ak néegu doole yi nga xam ne ku ñëw fi tey xam ni ñu yitte woon ñoo faj rawatina faj moom gratuit la loolu mooy dëgg-dëgg yéene si maam Cheikh mi nga xam ni moo initié lii nii bëgg ñëpp di am maanaam accès ci wàllu faju ak di saytu seen wégg yaram rawatina dong daara yi nga xam ne ku ne xam na ni ñu bari seen baay seen loxo jot seen gannaaw ak seen i waajuri jigéen loolu daara dañ ko yittewoo loolu moo waral ñu njëkk woo daara yi daara yëpp ñëw. ngir dongo bu am lu la metti nga mën a faju gratuit ngi yàlla ak yonent Sëriñ Tuubaa Sëriñ Gaawaan mi nga xam ni noonu laan dox moom Sëriñ Gaawaan hôpitalu Njaaréem bi 1912 Sëriñ Gaawaan moo ko financé woon kon demeen turandoom daa ndox ci social moo waral moom mii kasaalikaat ndaw la waaye Sëriñ am jàng fa wax na ma wax leen ma lu mel ni mosu ko gis Daaru Salaam te yàgg na fi kon moo tax mu bëgg a jàppale néew gi doole yi ku ne gis na fi ay soxna ak yi nit ñoo xam ni bëggoon nañ lii démb amuñu koon tey rek sëñ bi jàppandal leen ko bëgg jàppale képp ku bëgg a faju Daaru Salaam yaa xam këru yaakaar la këru maanaam mucc la këru faj aajo la bëgg ñëpp jàpp ci mu man di gën koo jigeel fu association mas a àgg ci àdduna bii dem dem ba weesu ko di ñaan yàlla àggale yéenay moom si maam Cheikh. journée de consultation gratuite bu mel ni guléet ñu koy gis fii ci Daaru Salaam. lu ñu bettalal lu kawe njort la boo xam mu si ndax am docteur am dama koy euh, tudd lu bari am am pharmacie ko nga xam nañ ko Daaru Salaam fi la nekk ñu tuddee ko maam maami sëñ bii nii waaye mosul gis demee nii kon day mel ni ñëpp ci am mbég euh, mbégte ñëpp la euh, kawe seen mboolem askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëwoon ngir ñu consulter leen santaan nañ bu baaxa baax association bi ci taxawu gim leen taxawu ci seen wàllum wér-gi-yaram. ñu ngi rafetlu lool seen taxawaay di rafetlu it taxawaay si Maam Seex ndax lii mu defet lu rëy la ci ñun waaye daaru salaam xam nañ ne lépp lu waaye tàmbali lu mën a doon rek suñ ko tàmbalee wut fii dina mujj si fii ndax loolu moom maam Seex Anta ko liggéey waaw ah, ba muy ànd ak Seexul Xadim nanguloon ko ba muy jiitu di ko nangul booba kenn fekk ko ci daa ñëpp ñëw kon lu waaye mën a tàmbalee fi béréb buñ ko tàmbalee wut fii dañ ko fi eggalee buñ ko buñ ko eggalee wut fii dañ ko tàmbalee fii suñu SCP bi nga xamante ni mooy Alaaji Boy Do chaque jour day nuy wax nuy dox ci loolu di ak bëccëg chaque jour du tàqali ko ak ñun téléphone am dem leen mobiliser nit ñi nañuy ñëw ci hôpital yi nañuy ñëw di faju si dee leen seet saytu nit ñi seen biir kër yi ndax am na ñoo xam ne dañuy feebar tëdd ci seen biir kër te xëy na seen doole ju néew xëy na moo tax ñuy tëdd foofu xëy na jàppandalul ñu lu ñu war a yóbbu kon nii ngeen def tey jii xool yi ñëpp saf cee sedd barke Seexul Xadiim waaw bi ma fi dikkee moom wax dëgg yàlla li ma fi doon dégg kawe na sama njort ndax teg ngeen ko ci yar ak teggin ak itam yërëm malade yi leen di seet waa ma jot nañ maa seetal nag waaye dañoo natt tension bi rek boolewaat maa ngeneen ñooñu nag jotaguñ maa wax bi dara waa askan wi wuy si nañ ndax woote ngeen ni ngeen woote yaakaar naa ne baax na ci askan wi ndax jafe-jafe askan wi la muy wér ak wérle ndax ñun ñu wéroon tey suñu xale wérutuñ mel nañu amuñ dara tey da ngeen ñuy seet seet suñuy xale waaw te loolu mooy jafe-jafe askan muy faju te yéen a ñuy jàppale leen ci bu baax a baax a baax te santaale nag suñ maam Cheikh mi nga xam ne ñoom moo laasel lii appel bi ndax ñun mënoon ngeen koo def sax ñu yeex koo yëg waaye waxtu yàlla moo ñu ci soññ moo ñu génne waaw xanaa sant leen di leen sant baax a baax ñu gën a ànd ak bi rek sëñ bi yéene ju am daal tey kuy taalibe kuy mm, sëriñ bëgg nga yàlla def nañ gën a taxawu takku ndax mbooloo mooy doole tey jëriñ mbindéef yàlla ko bëgg lool sint Tuubaa maam daa waxoon ni li ko indi adduna mooy bu Sëñ Tuubaa taxaw alxuraan taxaw xadis jëriñ mbindéef te association bi moom jëriñ mbindéef te tey ku ñëw tey xam ne tey jii am na ñoo xam tey mënuñu woon dem ndaamaatu mu ñëwoon dem ak hôpital yi bare ba ngir ñàkk moyen tey sëñ bi ñu jox garab yoo xam ni ñëpp ngi sant maanaam sant boo xam mënut ko ñu mënuñu ko misaal. ko dañuy taxaw ñi day ñaan ñëpp gën a jàpp assurance bu baax a baax ak gën leen sant ñoom ñu gën dëgër baax ànd ak sëñ bi nga xam ne daal moo ko jiite eh, fondé ko yàlla àggale seen yéen taxaw leen waayroo baat nan consultation gratuite bi mobiliser nañu ay médecins généraliste yu xarañ lool association bi lëkkaloo ci ak Touba assistance médicale ñu jot a consulter lu toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti nit ci journée bi ak fukki nit yoo xam ne defal nañ leen échographie te fayuñ dara. léegi nag feebar yi ci ëpp également am na ay am na diabétique également am na conjonctivite maanaam mooy wane bi nga xamante ne nii moom moo moo xew foofu ak problème estomac mooy syndrome ulcéreux yi tamit bàyyi bàyyi na fi. cinq médecins généralistes waaw ndax gis nañ ni consultation générale bi moom moo ci moo moo ci ëpp solo waaw spécialiste moom amu fi waaw ndax euh, boo seetloo feebar yi gën a gën a bari jamono ji yooyu si ëpp médecin généraliste mën na ko gérer di si mel ni wànnen beek yenn pathologie yooyu médecin généraliste mën na ko gérer tension diabète yooyu moom liggéey médecin généraliste mais par contre pathologie bu laaj spécialiste bareegu donc euh, ay globalement médecine générale moo fi nekk médecine générale médecine généraliste ñoom journée bi nag yemul woon ci consultation bi rek waaye maye garab bi ci la. dañuy dañuy conseillé pare maye garab nax association bi dañu wut ay garab yoo xamante ne daanaka dafa dafa lëkkaloo ak yi ñu gën a gis fii loolu ëpp euh, feebar yi ñu gis fii garab yi am na fi dañ lay consulter dem may la garab. waaw d'habitude noonu la ñuy def foo consulter consultation ku ko ku ko wax wax traitement ordonnance bi ngay bind ay médicament nga ciy bind loolu mooy traitement bi. maintenant euh, leneen li ci dolleeku mooy amaale na échographie maanaam am na ay méthode diagnostique yu mel ni écho am nañ fi écho nga xam ni day ñëw su waree écho yëpp écho gratuitement. garab yi aussi yow médecin boo gisee ordonnance bi foo ko dégg rek am traitement la donc euh, globalement loolu ñi nga xam ne ñoom lañ fi jot a consulter am na ay at yëpp moo xam xale la mag ak ndaw. tranche d'âge yëpp la euh, par exemple man am naa fi ay mag juróom-ñaar fukki at ay juróom-benn fukki at juróom-ñaar fukk jëm kaw am na tamit ay xale. gis naa ay adolescents ak ay bébé parce que association santé éducation emploi wér jàng ak liggéey ñu ngi ko sos ci 6 décembre 2020 amagul at waaye ñuy liggéey liggéey yu am solo association bi nag yemul ci consultation bi nga xam ne moom la doon amal tey jii ci Daaru Salaam waaye domaine yu yaatu lool mu ngi ciy yëngatu muy wàllum social éducation formation ak liggéey ak yeneen ak yeneen.